yëpp taxaw ne personnalité neutre indépendante muy indi ministre euh, Cheikh Gueye. Mm-hmm. même bu dee à ce moment là Macky Sall avait dit que non non il est toujours sous la tutelle de euh, Ousmane Ousmane Ngom. Mm-hmm. il a organisé des élections transparentes. Mm-hmm. Macky Sall gagné Macky Sall gagné. mais c'est pas avec un ministre de Macky à l'intérieur que. Ah, mais ba léegi waxuñu mën na mën keneen avant avant ñuy egg c'est ce que c'est ce que nous demandons d'ailleurs ce que nous demandons. mais pour qui connaît la personnalité de l'actuel ministre de l'intérieur là. mais il est plus dangereux que ki fi nekkoon ah. Antoine Diome moo gën a. oui Antoine. il est beaucoup plus dangereux que lui. ils sont tous des hommes de droit mais il est plus dangereux que lui. def leen enquête ci personnalité ah non non def leen enquête ci personnalité am ñun kañ def xamante ci liggéey na ci wàllum. mais même à travers son parcours xam nga tu sais à peu près c'est quel genre de personne. d'après d'après lu ñu gis. ministre de ministre de ministre de la justice tuubeen la lu mu sañ lu mu sañ ki mu fekk ci religion bi sañu ko tuubeen la xoolal tuubeen yi rek. yaa yaa ngi mais c'est ça la vérité non mais non en parce que parce que des fois tamit ñun bëgguñu quand même comment on ci peut-être xëy na liggéey bi ñu koy bi mais yow tu penses que aujourd'hui dans des ministres de ce genre la Macky Sall va amener n'importe qui là-bas il n'est pas né la dernière plus xam na bu baax lu mu def mhm. xëy na am na loo xam ne sax bu ko bëggoon sant Antoine du ko def moo tax muy mu jëlee ko fa récompenser ko yóbbu ko maintenant ci pétrole bi mhm. Euh, merci Cheikh juste sa réaction par, par, par rapport maa maa ngi doon xëy xëy na peut sax sama xel tàmbalee da ngeen da ngeen waaw man ba gëm naa ne man su ma waxee sa xel dootu dalati parce que man euh, gouvernement président Macky Sall d'abord li ma gis depuis mu toog Macky Sall il faut lui reconnaître une chose dafa bëgg slogan quand même sobre vertueuse gouvernement de de combat gouvernement fast track te yooyu yëpp dafay cligner à gauche tourner à waaw fast track bi gis nañu nee daf ko bëggoon biral pour affaire yi biir dem nañ ba si yi gën a yéex. Mhm. ah nee track bi lu tax mu tegoon ko nee moo taxoon mu supprimer poste premier mhm. ministre. parce que nee du am sunu temps parce que dafa war a dem. présider li nga xamante ni mooy Union africaine. Mhm. donc yàlla dogal mu def loolu après mu ñaan encore ñu on parle de gouvernement de combat et de mission. mais quel combat. est-ce que c'est un combat bi nga xamante ni c'est pour rendre au peuple sa dignité mhm. est-ce que c'est un combat bi nga xamante c'est pour lutter contre la pauvreté est-ce que c'est un combat pour créer de l'emploi je n'y crois pas trop en quatre en euh, quatre mois yi nga xamante ni moo ñu moo leen dese fii nii ba nga xamante on va aller une élection présidentielle mhm. yaakaaruma mu am des actes majeurs yu ñu mën a mhm. pour changer la vie des Sénégalais le a Euh, le le le le quotidien des Sénégalais le quotidien de góorgóorlu n'est-ce pas il l'a pas fait il n'a pas réussi en tout cas à le faire il y des insatisfactions de part et d'autre aujourd'hui on nous dit que pain bi dañ ngi koy waaj a yokk ce qui est quand même euh, une chose catastrophique ginnaaw nit ñi mënuñu am courant bu doy déjà mu ngi commencé coupé courant bi dafa cher ndox mi dafa cher. ñu ñëw bëgg ñu yokk waaw ñu bëgg ñu yokkal ñu bëgg ñu yokkal mburu mi nga xamante ni déjà ça coûte très cher à mon avis. Hmm. am na yenn euh, boulangerie et cetera même des ces gens ils le pain euh, nu nu mu tudd baguette bi à deux cents francs même à cent soixante-quinze amatul donc. man xaaruma dara ci gouvernement Macky Sall bi lu dul gouvernement bi nga xamante ni politique c'est un gouvernement taillé sur mesure pour permettre à Amadou Ba mm-hmm. n'est-ce pas de pouvoir quand même les élections Merci. de gagner l'élection présidentielle mm-hmm. léegi nag c'est au Sénégalais ñu yeewu ñu xam fan la ñuy teg seen tànk ak si kan la ñuy porter seen choix parce que ku koo fal douze ans mm-hmm. lu mu deful si douze ans gëmoo mu def ko si ñeenti weer Euh, merci Cheikh euh, moom Lamine Ndiaye dañoo ngi lay jaajëfal daanaka li ñu ci doon ci waxtu matal lañ ko waaye nag comme que ancien sénégalais mënuñu ñëw fi tamit te duñu laal quand même tuuti ci éducation xanaa peut-être foofu la ñuy tàggatoowee université ñoo ngi doon xaar mu tijji mais ba léegi dafa yéex foofu nañ sax ci wéy béykat ne dañoo buñ ko bëggoon tëj ba ba élection jàll ndax jàpp nga ne loolu lu mën nekk la. ñu tàggatoo ñu jeexale foofu c'est-à-dire que xam nga xam nga euh, élection warul yéexal. jàng réew mi mhm. mu dox. Mhm. te lu ëpp ci loo ëpp solo ci réew mi. Mhm. mooy njàng ak njàngale. Mhm. mënoo tëj ak e- université depuis le mois de juin. nga ne cours en ligne ngay def xam nga ne cours en ligne bi doxul. enseignants yi seen bopp sax xam nañ ne cours en ligne doxul. Mhm. enseignants yi seen bopp ñoo taxaw ne nañu ubbiwaat parce que mënoo kon ne di fay nit ñi te liggéeyuñu. nañu ubbiwaat université bi mais ñoom li ñu ci calculer rek mooy que ni euh, étudiants yi dañuy jóge foofu def manifestation. mais c'est pas c'est pas une loolu moo war tax ñu tëj ngir yàlla nañu ubbiwaat université suñu doom yi jàng. suñu doom yi jàng ci ça donc enseignants yi seen bopp ñoom ñoo laaj pour ñu ubbiwaat université bi te mënoo ubbi classe yi nga ne léegi da koy tëj. campus social. campus social foog nga foog nga tijji ko. Mhm. foog nga tijji ko parce que état quand li mu yore ci ay moyen du man di man man sama salaire. Mhm. donc bu amee ay yàqu-yàqu au mois de juin. Mhm. normalement bi manifestation jeexee une semaine après. dañu war defaraat yëpp bayaat élèves yi ñu dem jàng étudiants yi ñu dem jàngi mais ils pense que c'est en les maintenant chez eux là-bas là que dañuy kon def seen juuj njaaj tere Ousmane Sonko bokk ci élection yi nit nit ak pexem yàlla ak dogalam de sorte que tey jii dara mënul tere Ousmane Sonko bokk te confrontation bi lañu ñu war a arrêté recours bi man dama xamul ban intérêt état moo nekk moom moom lañu ñu menacé ba état di war a pourvoir en cassation donc tey jii nañu war a xam ne bal ba takk na comme ni ko xale yi di waxee. Hmm. Ousmane Sonko dafay bokk parce que gis nañ ne li ñu ko retiré ci liste électorale yi. Hmm. teguwul ci yoon. juge wax na ko ne nañ ko delloowaat ci liste bi. Hmm. nañ ko delloo ci liste bi bu amee waxtaan boo xam ne war na mu war nañ ko mën a seex. pour rassurer leen. nañu dem waxtaan ak Ousmane Sonko. d'accord mu rassurer leen. ñu delluwaat ñu ñu bàyyi élection yi jàll. bu ko defee réew mi nekk ci jàmm. njàng mi dooraat université. Euh, ñu jublu ci jafe-jafe yi nga xam ne moom la askanu jànkonteel ñu trouver ay solution la li ci trois mois yoo xam ne dese na leen fi buñ ko mënul aussi également bu soo ko jëlee réew mi muy régler problème sénégalais yi. merci vraiment di euh, la jaajëfal ci li nga xamante ne nga bokkee ci waxtaan bi Cheikh dafa mel ni temps bi man temps bi de man man ah, boo amee ah. waxtaan benn xam nga boo amee invité quand même bi nga xamante ne invité de marque la donc euh, xam lu muy maîtriser muy wax bon naturellement. doo yëg temps bi doo bi waaw sinon di la jaajëfal encore une fois rek sinon di am euh, benn quand même euh, voilà waxtaan bi nga xamante ni peut-être euh, bon ñun peut-être surtout wàllum presse audiovisuel bi mhm. ñu gën si bàyyi xel mooy quand même y a le conflit israélo-palestinien bi nga xamante ni quand même am na ay ay ay ay victimes yu bëree bëree bëree bëree bëri bëri vraiment on on en appelle n'est-ce à la responsabilité de part et d'autre mm-hmm. aussi di ñaan suñu njiit yi aussi ñu jël ay positions yi nga xamante ni dina doon position yoo xamante ni dina permettre mais ñàkk cee wax aussi est-ce que lu benn aveu d'impuissance dañ ci am waaw mais xam nga nit moom euh, soo gisee dara soo ko mënta faj ak say loxo au moins wax ko ci sa làmmiñ boo ko waxee sa peut-être dina dina changer donc euh, voilà le peuple palestinien actuellement mu ngi souffrir donc euh, vraiment y a trop de victimes euh, côté force yi les forces ne sont pas proportionnelles donc vraiment di ñaax ñëpp daal ñu ñu def ci ñaan ba jàmm dellu ci foofu nga xamante ni mooy Jérôme xam naa dinaa la jël une minute là mais gis nga problème euh, Israël Palestine mhm. il faut adduna bi laay war a wax na ñu góor góorgóorlu wax dëgg mhm. wax dëgg israéliens yi ñoom ñoo fekk ci palestiniens yi c'est pas parce que aujourd'hui on va on va compter sur leur puissance à travers le monde que ñu bañ leen wax dëgg mhm. mënoo ñëw ñu tracer leen seen frontière ne yow fii nga mën a nekk mhm. ñee fii nga mën a nekk ñuy ñëw di continuer di coloniser